Cheikh Mouhamadou Moussa Fall lañ dénkoon ñaaram ñi daana wax naan sama ñaar ñi suñu sax suñu makka Madina la lañ dénkoon wax ne leen toog leen tubaab bi fekk si leen su ngeen ko defee da ngeen am doole waaye bu bu ngeen leen fekkee kon da ngeen ñàkk doole man nag ma firi ko ne kon kon loolu mooy civilisation tubaab bi léppam rek lépp ceddo ñu ñu sëriñ si bokk ak ñoom waaw ndax ginnaaw noonu ko góor gi Fall Madior waxee woon adduna ak alaxira la yàlla teg ci loxo sëriñ bi sëriñ bi gis ne kat adduna dafa salte ceddo bi ne ko teg mu ko dénk dénkaane ba noppi nag topp ca loolu loolu ku ne ku ne xam ne ne ne xorom am na Cheikh Mouhamad Dal Fadal bala ñu bala ñu ñu faa ñëw suñu tubaab dénkaaneem li ci majmua bi li mu waxoon ne waaw waan yatruka maa yuksiru xawaatira ahlil ardi wa xayrihim inna salaamata wala fi xayrun min aksihima li muy digle moom mooy jàmm rek la digle jàmm booba ay yëf fi ne woon booba ay tubaab fi ne kon tey nag tey nag suñu mbokk mbokk rek fi nekk ñu koy séddoo kon lu mën di am kon su suñ bi kon ok mu ne kon kon ok waamatu kulla man yaddan yi an nii an na nii raisuhu maa ngi digal képp koo xam ne da ngaa jàpp ne ma maay sa kilifa bi taatillahi ci topp yàlla wa taati rasulihi alayhi salaam ci topp yonent bi salaam wan yatruka maa yeg maa yeg siru xawaatira ahli ardi wa xayrim mu bàyyi lépp luy jax-jaxee nag maanaam dal jàmmi wa ci waa suuf kon nag fi na salaamata wala fii te xëy na mu nekk si man jàmm daal mucc jàmm daal mu moo moo gën safaan ba loolu kon leer na moom sëñ Fallu ak Senghor ji noonu ñu koy waxee sëñ bi junj na ko sëñ Fallu dafa wax lu lu xorom nga xam ne da ko wax publiquement ci xot bay band yaa ngi fi nee na naa nee na naar yi dañ ko laaj ne ko lu tax ngay jàppale nasaraan yi bi mu ne waaw inna allaha la yu ayidu haasa diin bi rajulin faasiq lu kéemtaane la yàlla dana jàppale diineem ji ci la jul bu kàccoo jul bu kàccoo xam nga kon kon moom xam ne kon Senghor kàccoor la waaye nag amal na njëriñ prochaine bi man fii dafa ne Senghor su ko diggee dana ne kon Sëriñ Fallu tigu fen kon rajulun faasiq ah tigu fen kon de kon kon moom daa daa am lu bëgg ci moom waaye waaye bëggalu ko daraam faasiq la loolu ko kon yaakaar naa it foofu dana wuteeg nga digg kilifa yi naan doomu la ci kër geeg dina bànn ci nangam xam nga rajul faasiq moom kenn bëgg bëgg mu doon doom ci kër gi moom waaw loolu ko kon it lu am solo la Senghor bi mu ñëwee ci neen ci ci ci jullit jumaa ja soli daal la gaa yi di ko méttiit lu mu ne waaw ndax ndax lee kon kon daal jumaa ji mucc ci tànkam ya maanaam léegi mucc ci sobe ga loolu suñ bi Senghor su su ko déggee da nga xam ne sëñ bi tëjoo ko fenn de loolu loolu it lu am solo la laajaat nañ ko ne ko lu tax ci nga fonk Senghor mu ne waaw yéen ku gisoon ci yéen sama bind lu mu koy def ñu ne ko xanaa fonk mu ne Senghor bindum yàlla ak rëy foofu giseen bi bindum Senghor lu ko gis fonk ko raay foo nangam mu ne Senghor bi nag bindum yàlla moom foofu giseen la wu kawe fala tuhaadu ma raytum fa fa yuxriju laa ilaaha illa Senghor nu man di mel rek yàlla ko bind ni ngay wormaale muus mi di wormaale teeñ waak fel wa nga war a war maale Senghor loolu it nag gisin wu am solo la wu kawe la waaw kon waaw sëñ bi li mu doon junj ci sëñ Fallu ak Senghor ak yooyu ba xam xam nga sëñ Fallu moom aarif billaahi la aarif bi billaahi li muy gis mooy maalatul umur lay gis moom moom day taxaw fii di jënd loog résultat bay xari sëy dafa yoroon sama sama ndey ju ndaw ñëw ci kër ga nii di waxtaan ab yoor yoor daal leen sëñ Fallu bi ma yóbboo Makka ne ma dama la yóbbu Makka mu ci suñu wax ko mu ne ma su su ko defutoon ma def ko sëñ Fallu jox ma dugub ne ma su ko demee sotti ma ko ci xëtey Makka ak Madina nee na ba ma ñëwee ba ko bokkante li mu ne ma dara mutuma wax ba ngay sotti dugub ja xatiye tongoñ ci sa tànk yi maa ngi jàkkaarloog moom xam nga kon ko kon maanaam ma alu umur lay gis moom noonu noonu buñ gisee Senghor ne kat nangam la Senghor baaxut aw fi génn fi yëfër la waaye moom gis na ne moom kat Senghor amal na njëriñ islam waaw loolu loolu loolu yaakaar naa it Senghor comme duñ xëccool noonee mu ñàkk a déggee réew mi ba yem ca taaxee dong ku ne xam na ne moom it ndax kon moom bu toogoon ba du yem ca taaxee kon rek kon it kon daal si si fàllu kon léegi am na ñu diggin loolu mooy axasu min duniyaahu zaaji lil jinaan maanaam maanaam maanaam suufiyanke bi moom àllaaxira lay xool finalité bi mbir mu nekk finalité ba lay xool sëñ bi kon daa wax ne suñ mag bi day wax ne kat def naa adduna mu nekk sama warwaay jëm àllaaxira saa ji di jinaan léegi nag wan xaadali hawa wali safal janaan da nga ci gis ne kat loolu kon mi ngi mi ngi junj ne kat lépp loo xam ne day day yàq maanaam naa léegi jàmm mi suuf si kon mat naa moytu léegi nag kon soo doxee noonu yow jàmm dana am maanaam li nga xam ne ne kat léegi yow da ngay jàpp ne lépp lu la mën a dimbale alaxira rek yow mu yor wa yaakaar naa yaakaar naa jamono jii nu toll soxla nañ gisin woowu danaay wax ne li gënoon sax mooy bu ñu xool nuñ jiw sàngam nañ xool programme am lan la xam nga nu nu africain yi ba tey noonu dañ naan jiw sàngam góor a njaay góor a jóob moom moom la ñuy faral waaye nuñ faraluñ programme góor a njaay góor a jóob jullit la yëfar la li ci am solo mooy programme lan la ndax arrangé na man ndax arrangé na réew mi ndax arrangé na maanaam léegi diine ji su boobaa nga nga farak programme waaye nuñ nuñ nit lañu faral nit lañuy nit nuñ moom la ñuy ci faral léegi gi nag foofu boo dikkaatee ci sama ñaari gaay yi muy Machiavelli ak Platon léegi ñoom dañ naa la ñoom yëf yi noo ci mën a jote baax na buñ dikkee ci ab sëriñ ne ko dañoo jëbbalu ci ceew politicien xamul loolu moom xamul ay jëbbaloo ak ñàkk a jëbbaloo politicien bi maanaam léegi yëfar beeg yaakaar naa am na fi ko demoon ca ca ca église ba ne ne ñaanal leen ma waaw ñaanal leen ma loolu yaakaar naa mi ngi ci vidéo yi ñaanal leen ma ñu ñaanal ko maanaam moom kii njabar ak église baag jumaa ja lépp ci yam moom daal ku ko mën a jox li mu bëgg rek baax na loolu loolu nag sëriñ si bi daa war a xam ne kooku moom du suuram téere mooy mooy Machiavelli yi Machiavelli mii moom mooy alxuraanam mooy noo mën a amee li ngay wut noo ko mën a amee na nga ko amee noonu alxaayatu tubarirul wasila ñoom dañ ne kat li ma bëgg lépp lu ma koy may naa ko jël xilaam Mariama nekkoon Éthiopie wax nañ ne ci li koy waxal ginnaawam nee nee ñu at mu jot li mu daa tuuroo ab ab xiig xiig jàng bu demagul kër lañ koy rendil ci pisinam mu sangoo ko at mu jot loo loolu lay tuuroo ah ah jaral na ko di jaral na ko sémanaar sa maam dara wax naan ku bëgg adduna mat naa moytu ndax du du ñëw loo def la ko koy may waaw ku ku bëgg adduna alors maanaam kooku moom yow da ngaa bëgg alaxira nee nga moom moom rey laag def loolu nekk am adduna jaral na ko ko kon kon ñoom Machiavelli li mooy wax loolu lépp loo xam ne da lay may ngóor defal léegi nag léegi nag liñ mën a jàngate ci sëñ Fallu tolérance boobu état lu mat a xamle la état état ñaar la xam nga lu estate ci ci anglais mooy lu mooy lu sax maanaam léegi bu dee sax bu dee bu dee état ci ci français xaw naa xaw naa am nuance waaye anglais ji mu gën dëgër état mooy ku xamoon building administratif jamonoy Senghor ba tey jii am na fa ñoo xam ne bu bu ñu deewut jóge wuñ ca seen bureau ya. doo ci toogal kenn ba mu ne la Senghor mbaa Abdou Diouf mbaa Macky Sall du wax ñoom du yocc yooyu ñoom ñoom ay dossiers ci lañu ne ñoom koo kooka mooy kooka mooy ci état de léegi gi nag ci état daa am ay ndigal léegi président Macky Sall taxaw na garde corps bi ne ci ginnaawam garde corps bi li muy def président du du ko digal lo loolu ndombak tànk ga moo ko ko digal loolu lu- lu am solo de maanaam léegi léegi ndombak tànk gi moo koy digal kon léegi moom lépp lu lu muy def du xaar ndigal loolu président président président yërëfu ko de kon misaal su- su- kër kër kër kilifa yi dama dégg benn kilifa buñ nekkat ab gendarme day moom saa bu ñëwee ci dëkk bi gendarme ba mooy ñëw doon ab chauffeuram di ko dawalal ba mu dem mu ne waaw sëñ bi xanaa moom war naa xam ne gendarme bi fa mu pointé war faa taxaw maanaam suñu faa bouché mètre te amul ndigal lan moo ko tax a bouché foofa ñëw ci kër gi ànd ak sëñ bi ay fan lu mu doon waay sëñ bi sëñ bi xelam wërta daw foofu dara léegi état ngoog fi toll yow ci ci ci état liggéey bi àgg na ci jël jël ab ab ab ab gendarme mu mu- muy ñëw ci kër sëñ bi di ko dawalal oto sëñ bi moom yaakaar ne xéwal la lii kay moom man dong maa ko am te fekk na déedéet dégg naa fi kilifa goo xam ne ab koñam kuran sëñ bi moom day daal kontaan yaakaar ne man daal maa gën sa sama bokk yi ngir man courant bi man lay xaar fekk na déedéet état de- état defut loolu état bi moom dalaa bëgg a moom bë- bë- bëgg nag saa bu jëmee ci yow doo am mbokk loolu am na soo de maanaam maanaam état sëñ bi mat naa ba xel fi ñu toll sa sang yi buñ dee waxtaan bay tudd ku bokk ci ndombay tànk yi lu lu mat a ba xel na nga na nga na nga natt sa baat yi baat yi ngay wax sëñ commissaire day ñëw sukk fii sëñ bi Mbàkke ne ne waaw man kat sëñ Fallou kat moom sama bàyyi moom ci la newoon parce que waaye bàyyil xel ne ñaari manto la sol manto bi mooy murid la tel bi kër sëñ Fallou la waaye manto bi mooy nag renseignement généraux la yow ba ko xel de looy wax ak moom së sëñ Alaaji Baara defoon na lu am solo ca Poroxaan ja ba mu wootee mbokk yi ñë- ñëw ba noppi am ku jóge ci état ñëw mu ne ko xa mu ne ko xaaral fekkee jotaay bi. kooko toog mu wax a wax ba kii daa koy ñaan mu dem mu ne xam nga loolu lu ucculoo dama bëgg fam bu demee fam jëm ne ne ñoom de ñaam fa ba ànd nañ oh loolu loolu suñ bi loolu xelam mag la fi fi fi fi fi ñu toll digg-digg sax seen lañ baare li mu bëgg mooy waa ji jot na am na information te te te amu ko amu ko de liñ bëgg a waxtaanee wa- wa- waxaguñ ko ginnaawam lañ koy wax loolu loolu së- sëñ bi loo- loolu état léegi si nag sëñ du Mbàkke daa faral ju sàngam état mooy ki fi ne état symbole bi mooy ki fi ne bu ñu nee état Sénégal fi mu toll symbole bi mooy président Macky Sall koy contre ku nekk looy lu ngeen di coow ci politique bul contre état bi moom soo contre état bi bul si buru de moom ba dem hôpital. sa oto bu sa oto bu bu bu bu ca dara sikkee bul benn mbir chrétien sa taalibe lépp ci am bul ko jox de dégg ngeen fi diw sàngam diw sàngam seen pasero ya day daw ba ci yàgg puno ba naaw bulon yàlla la ñuy wax ka ka koy toppatoo ne ko coromal ko sama baay wax na ne ma ne ma ne ma day benn professeur ca Ndakaaru na ko wax ne ko bis ne ko sëñ Moor day nun nun day suñu liggéey bi bi baaxut nu ko ah mu ne ko day liggéey bi de léeg-léeg kilifa ñëw fi ñu ñu jot ndigal ca kaw ne seetaan leen ko waxuñu ngeen laal ko de seetaan leen ko rek Égypte cheikhul asar jaadul xaq cheikhul asar bu fa newoon daa ko ànd gouvernement bi ba ba ci àgg mu xëy xëy contre leen daa wéré di dem hôpital gars yi ne hôpital bi kii du du hôpital kii la nu ko waxati clinique ñu ne oxygène dafa jeex noonu la faatoo ñu ne amuñu oxygène ku ku ku toll Seexul Asar ci nit nit bu ñu koy dugal ñu ne amuñu amuñu oxygène waaye di faatu mo- mooy seetaan leen ko ko kon sëñ bi euh, ah sëñ bi Mbàkke kat yow ginnaaw yow da- ndey ji seex nga ku ñëw par exemple Macky Sall bu ñëwee ne nangam Sonko ne ñëw nangam ko est-ce que waaw sëñ Saliou daana def lu am solo stratégie bu am solo ku ñëw ne ko nangam policier yëpp da- da- dañuy ñëw baa dina ko ah maa ngi jàng kon de ci ci ci rab bi bi bi bi maay kes raw lu waaye di yéene na ko ci yéene man say du ci man ma nga xam ne sëñ bi du wax kenn dara sëñ Mor Mbaye Cissé ma ma xamoon njëriñam daaraam ji ci laa ne woon politiciens yëpp daa ñëw jamono jamonoy Senghor ba ci Abdou Diouf ci maa nga fa man 73 laa fa ne ba 85 ba ba 80 ba 81 maa nga fa ñëpp ay ñëw sëñ Mor ñëpp la faral ñëpp la faral xoolal day far sax bay far bay ñaanal booba Gorbatchev mi ngi fi ak Mitterrand ak lan ak Reagan mu ne da leen di ñaanal jàmm ñu bu ñu waxee mu ree daal de ñooñu kat bu ñu amul jàmm duñ am jàmm kon kon sëñ Mor fexe na moom ba kontërul état état ku ko xam fi ñu toll suñu mbokki Tiwaawan yi dañoo gën a xam ñoom état fi ñu toll ñoom coow li coow li duñ wuteeg état duñ jóge moom fi ñu toll suñu état jërul nga jërul nga naan ko maa la fal jërë jëri ko maa la dangam yooyu jëri ko état xam nañ fa la ko déedéet jëri ko maanaam yow bul sonn ci loolu état état moom yow su bëggee nit ñi cëw lay ñëw doy na sëkk sëñ bi doy na sëkk de yow état ci yow la ñëw dikk lay loxoom jeex na bul ci yow ñaawal sab der loolu sëñ sëñ bi noonu bu ñu xamee ci ci état kon dana baax de kon kon jëflante bi dana kii foofu nag moo amat solo sëñ bi Mbakke kat da ngaa jóg dem ca président Macky Sall ne ko dama bëgg ay tracteur léegi danañ bind rapport sëñ bi ñëw na fi ñaan na fi ab tracteur léegi ñu ne waaw fu mu dëkk ñu ne xanaa ndindi ñu ne waaw ndindi amuñu benn soxla bu du tracteur rek ñu ne ah kay am na am nañ soxla sa nangam ñu ne lu tax andiwu fi soxla sosu yow ab sëriñ la moo moo war a andi soxla yi baadoola yi lu tax andiwu ko xanaa di andi tracteur sëñ bi loolu lu lu am solo la sëñ bi nee na nee na tëli baa ngi fi soog a ñëw ba ki démb noonu la sëñ Fall lu noonu la baxee tëli bi yéex a ñëw ndindi état bi wax Senghor daa bëgg ab tëli mu ne ko foo ko bëgg ndindi mu ne ko déedéet noonu baax état bi xam ne baadoola yi nga fi nekkal nekkaloo fi sa bopp loolu sëñ bi kii la stratégie la bu am solo état dalay wekk dalay wekk waaye noonu sëñ Moussa Sy moom moom sëñ Cheikh Tidiane Sy wax mas naa wax lu am xorom jamono yi Abdou Diouf waaw Abdou Diouf dane ma man yéen Tidiane yi de moom yéen mën naa wax ak yéen ndax yéen Tidiane yi man mënu maa wax ak yéen ndax man xaw ma lu leen bëgg murid yi ñoom sama mbokk murid yi moom ko mën a waxal ñoom xaalis rek lañ bëgg ak passeport service oh keroog damaa daa métti ci man daa métti ci man xoolal xoolal xoolal ñi xam état ñoom biñ ko laaj biñ ko waree laaj junni milliard lañ koy laaj mi ngi fi di mi ngi fi waaye yow da nga dem laaj ko junni état ne xanaa kii xawuma tab bu toll ne man nga dem laaj junni junni man foofu damaa xam sax ab junni na lay mela ab tracteur kese nga dem naa ko tracteur dama mas a déglu ci rajo bi benn kilifa naan naan Abdou Diouf moo tax may sangu cib saas ci ci ab mi ko wax ci abbas de public rajo rajo yi la ñuy jàlle ko mu ne oh la ilaha illallah ay waay Abdou Diouf moo tax may sangu cib saas waaw xam nga sëñ bi loolu loolu noonu li ma jublu ci kii bi mooy ñu ñu gën ci yàlla ñu gën a ñu gën a yeewaat ci état ne état maanaam noonu ëpp nañ ko maanaam noonu noonu murit gi ëpp nañ lool di doye di ci ci ci ci état waaye nag waaye nag état moom bul ko contre de man man man duutuma wate man tax man damaa damaa am damaa am projet moo tax du ma contre ci ci état état boo am projet contre ko seet loolu si ànd jóob seetlal sëñ Cheikh Gaye defaat ma sëñ Cheikh Gaye defaat ma pànkër na am na doole waaye jàllut lu tax dafa contre état Cheikh Anta Diop anamu kàngam la xam nga Cheikh Anta Diop lañ ko daa fay weer rek ca université fukki junni juróom sama benn bàyyi nee na mu ne ko fukki junni juróom tuuti na de mu ne ma du dara benn conférence ci Amérique rek mën na mën na maa yor at am at ñu di ko fay fukki junni juróom mooy de maanaam yëmuñ sax de képp ku koo xam ne da ngaa sant Diop ñu jàpp ne da ngaa am ak mbokk ak sant Diop état bi doo fi tekk dara jamono Senghor état dafa fort dafa fort sant Diop ay yoon i yoon et maanaam léegi état joxe na ndigal mbiri dina comment la nekk ñu joxe ndigal ne nañ ko seetaan yàlla ku yàlla waxtu wu nekk da cay génn ci jàmm waaye. ay yoon yoon bëggoon naa faat parce que ñoom ndigal lañ am ca ca ca kaw ne la bul kii foofu së- sëñ bi mas naa ko wax kilifa ne ko sunu hôpital ji jannatu bii si si gynécologue ba fa nekk ab yéefar la ivoirien la gone la waaw sëñ bi buñ ko joxee million wala nangam maa ngi koy jégalu mu nag waaye waaye tudd ma tudd wax dëgg yàlla waaw léegi léegi nag jox ko million wala nangam ne ko fotol ñu soxna diw mbàkkee bu fi dee am doom filmal ñu ko am na caméra am na ay weer boo ko takkee day filmé ñu filmé ko jamono internet net lañ nekk de yaa koy teg bàyyi ba sëñ ba war a doon xalifa kër sàngam ñu teg ko ci internet bi sëñ bi na nga ba xel de loolu danse la danse la danse la boo xam ne sëñ bi ëpp nam xel léegi ku kilifa gu fi wéradi ay waaj yi mun ñëw na wut euh, docteur Ousmane Gueye wax na ko lu am solo euh, am na suuf soo xam ne ca ca jannatu ca ginnaaw jannatu nii benn benn benn borom xaalis jënd na ko fa daal ne ne kat léegi yéen médecins yi sax bu ñu ko soxlaa ma joxe leen ko li li ma ko jëndee woon ñoom dafa bëggoon def clinique boo xam ne ngir sëriñ si clinique sëñ bi loolu sëñ bi jug leen ci clinique boo xam ne spécial sëriñ si ngeen bañ a dem Dakar waaw état la de état benn waay dama damaa wax ne ma ak kilifa mu ne ma bàyyam kat maanaam maanaam garde corps président Macky Sall dafay ñëw di ko wax daal moo jamono wate ba ne ko day Touba de moom xool nañ ci renseignement yi waaye dara ciut léegi nag ne ko léegi da daa bëgg ñu ne ko président nee na nga ñaar ko mu ne ko déet léegi nag dañuy bàyyi ba ca ca watee oto yi jëm mu tiit waa jënd uri di yóbbu ko hôpital nee na ab jabaatam ne ko kaay mu yóbbu la clinique sàngam buñ ko opéré jugut ah yeewu na waaye daal di nelawaat mu jeex sëñ bi état nga ne ko yow xam nga état bu soo ne ko dama la contre mooy kon yow adversaire am ba ngay waxal di kon moo tax baat yi kilifa yi baat yi ñuy wax ñu ñu jàngat ko fi ñu toll nii sëñ bi bu dee wax ñu wut ay expert mu léegi muy muy muy jàngat baat yi yi mu war a wax lan la ndax fi toll bu noppee réclamation yi dañuy jël ci rapport jàngat baat yi lan la jublu sëñ bi lu lu mu bëgg a wax loolu nun amuñu ko noonu moom sëñ bi day wax rek kar kar kar daanaka duñu xam te jàngkat yi am na jàngkat yoo xam ne dañuy miséré baat yi sëñ bi baat bi mu wax lan la yaakaar naa am na ay am na cas cas bu amoon am na am na cas bu amoon boo xam ne ñëpp xam nañ ko cas boo xamante ne kooka ba mu wanee ne jëf yi daal daa xaw jëm feneen daa daal di dem moom mu jaar yaa kon clinique boobu sëñ bi dox dox leen ci jàppale docteur Ousmane Gueye ñoom ñu wut ko baax na de ñoo xam ne ay murit la ñuy tànn Vatican suñu Vatican garde corps ya nekk Vatican jamono si sectaire yu mujj dama romb ci kër gi fekk fa ay làkkat yu wër kër gi ñu ne ñooy ñooy garde kër gi ma ne xool ma ne si ma ne waaw lii lu sëñ bi làkkat yi xam ne dëkkuñ ci dëkkuñ ci gox bi yëpp ñu ñu ñu ñuy garde xalifa bi général te murit léegi demal la Vatican Vatican Vatican seen noble yu mag ya yi nga xam ne bi ñuy sos Vatican ñoom ñoo àndoon seen maam ya ñooña ñooy garde corps yi kii bi maanaam li léegi pape bi kooku mooy koo xam ne su pape bi faatoo wala mu taraxis képp gàcceem la mu leen a wut suñu bi créé seex si seex si ngeen jël seex si nga xam ne sëñ tuwaa leen seexal tigi waxu waxuma seex fal si de seex tigi la wax tigi yi yi ñi si xool kooku nomination la sëñ tuwaa moo moo leen nommé woon seeni maam ngeen jël leen def leen ay garde corps gaa ne xilaafa gi fu ne ña koy wër xam-xam rek la karaté kaag fong foog shaolin nag lépp lu ñu jàng dong la ñu dem jàngi ko ñëw wër xali xalifa bi sëñ bi loolu baax na de ah léegi sëñ bi kat benn waay ñëw na fii nuyu la jox la ak saag bu rafet saagu di di diplomate sëñ bi daal nga ne dugal ma ko ci sama néeg bi sama néeg bi néeg bi ngay tëdd nga dugal fa saag bi waaye sëñ bi loolu ndax wóor na kilifa dañ koy def de jox la saako di diplomate gars yi dugal ci ci néeg bi xamoo ba xam appareil buy filma nga fa xamoo ba xam buy arrêté nga fa xamoo ba xam pompa nga fa pour sëñ bi loolu nun du ñu am ay expert damaa ñëw ci jumaa ji bis jaar ci jaar ci sëñ ko sëñ Fallu noonu dugg ci jumaa ji déedéet ci buntu bu bu bu waaw foofu la jaar ma gis waa ji yoru mu buus dugg ci jumaa ji ñu julli ba noppi mu génn dugg kër sëñ Fallu may xool ma ne waaw lu sëñ bi luy li lu tax wërtoon a am poste boo xam ne waa ji fu mu jaar ñu ne ko mbuus mi lu ci ne yaakaar naa loolu la xewoon ci fan yee waaw loola sëñ bi dara la xam nga ne te tey tey tey tey symbole bi daa baaxut ñu ngi ko boomee ci kër jiw kër sëñ jiw loolu symbole la te fi doolu sëñ bi noonu dañ yaakaar ne histoire jeex na surno yi dañ ko stocké fenn denc ko archive la l'an deux mille cent quatre-vingt-quinze ak gone mooy jóg di def di def ab ab thèse doctorat ba gis loola parce que sëñ bi war nañoo am si yàlla bara bi mu toogee wax nañ ko nañu wut cellule communication boo xamante ne mooy yor lépp luy génn ci Tuubaa di fa dugg xoolal ñu doon tawaaf sëñ bi ah ñi ko jël tasaare ko ñaaw na ci man wax naa ko sëñ bi lu nga bu ñaaw na ñooñu buñ ko jël toon filmé woon ko kenn du ko xam waaw ma ne waaw yow sa kër lu mu set set aw xob rek jar na filmé naan sama kër gi de am na xob ah kër gi mu fa am xob sëñ bi xanaa dina Tuubaa taxut nag taxut sëñ bi taxut léegi nag loolu lépp yow yaa ngi ñaawal sa sa der état bi da lay gën a yab ndax ndax ndax daan tubaab ko de xanaa dara nekkatu ba kooku ñu bëggoon rek loolu moom dafa rëy moom kooku jugee Ndakaaru nangam loolu loolu lépp daal état ngoog ay liggéeyam rii na xam naa xam naa daal maa ngi doon ñaan ay plateau yoo xam ne ne kenn du ko filmé kenn du ko dara ngeen woo borom xam-xam yi filmé yi doyu ca damaa fekkam ndaje sàngam di ca wax dem sama kër genn kilifa ñëw fekk ma fa daal dina ma bi ngay wax day gars yi dañoo taaloon seen téléphone yi def ko meli ba di wax ak ñi ci bitti di leen ko dégtal kon it su boobaa nag saa su ngeen di def yooyu am na appareil yoo xam ne day mën a détecté appareil buy tàkk ñu teg ko fa nga xam ne ku ku fi sa appareil ñu xam ne mu signalé ko bu dul loolu su ngeen ko defee benn yoon bu subaa kenn du ko defaat. kon maa ngi jégalu bu baax a baax di di di di jégalu ñëpp nag di wax ne yéen nag man du du ma politicien man man man ànduma ak benn parti moom kay man man moom ab dongab daara laa boo xam ne damay liggéeyal sëñ bi ci maanaam nag daal xeet wi yàlla na yàlla defal ñu Kazu Rajab goo xam ne danañ ko fekkewaat ay at yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri parce que Cheikh Mouhamed dafa sama kii maa ngi jégalu maa ngi jégalu.
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ sëñ Moustapha ci lu am solo lii nga xam ne gaaral gaaral na ko fi ci jàngat politique ak Cheikh Mouhamadou Fadal waaye mu indi loolu dëppale ko jamono jii nii lan lañ ci mën a jànge ak nan lan lañ nan lañ war a moytoo ñooñu ak nañ lañ war a mën a défendre suñu bopp maanaam jug ci suñu bopp balaa xeet yu mel noonu dañu dañu dal muy lu am muy ay yeete yu am solo yoo xam ne yaakaar naa lu mat a bàyyi xel la ndax sëñ Tuubaa danaal wax ni bu jamono soppi ko talam soppi ko lu neex yàlla la dañu soppi ko ànd ak moom bari muy jaar seen kaw jàll kon jamono bu dee dox dangay dangay dox ànd ak ànd ak moom ndax yaakaar naa ni li lii mu wax nii ci ñàkk a am autonomie ci sa bopp ba ñàkk a ittoo état sëñ Fallou bi jumaa ji àggee si nga xool xam ni lii xëy na dugal ci loxoom dara amul leen lu ñu ko ci mën a tudde da ko wax ne ko xanaa ñi nodd ak ñi jiite nga boole ma ak ñoom ma leen di fay sëñ Fallou ne ko boole ni am sëñ Fallou yàlla de woon ku mën a tonn la mu ne ko bu boo fi jugee loolu kan moo koy def si ngoon na tekki di ko xool mu ne ko bàyyi li nag yàlla mi fi du jukkoon kon koo xamoon na maanaam loolu bu amoon tey jii histoire da koy bind tey jii histoire da koy nettali te kon loolu dina am lu ñu wax ni lii lañ jàppale woon ñoonu mu te Sëñ Tuubaa loolu la daan bañ maanaam na ngeen mënal seen bopp ndax ku leen mënal sañal leen te loolu la loolu la daan bañ kon boo gisee lii mu fi lii mu fi tënk daal day gën a wane autorité Cheikh moom Cheikh Mamadou Fadal maanaam doole jum amoon nga xam ne ni mu jiite woon diine ji te man ci noonu la côté adduna bi it noonu la ci jiitoo ndax ñooñu ku leen song wala ngay dem ci ñoom it day aajowoo lu bëree bëri nekk ci yow maanaam nga nga nga toog toogoo dara loo xam ni ndax ñooña dañoo aay ci wet yëpp te seen i pexe te te seen i pexe bëri kon lii day gën a firndeel lu mag mel loolu. kon bu ñu ko dëppalee jamono ngay gis ni ñun war nañoo xoolaat suñu bopp maanaam jiima li liñ nekk ak ñoom fañ nekkoon ak li li li liy xaar Tuuba ëllëg ñu ñu ñu jóg ci ndax dañuy dañuy wax ni Sëñ Abdou Lahad am na mos na ko wax ab Juuf ci ay jamonoom fekk daa bëggoon a indi bi ab gouverneur boo xam ni jigéen la bu ko indi njaarim yaakaar naa histoire njaarim loolu mosu fa am gouverneur jigéen mu ne ko Sëñ Abdou Lahad wax wax ko Juuf ne ko loolu kat waru fee am ndax man fii ku fi nekk damay wéetoog yow te man du ma wéetoog jigéen waaw dama wéetoog jigéen moo taxut kon loolu yaakaar naa ni am na benn xe tooguñu woon noonu rek waaye am na lu noonu bàyyi xer ndax mérite loo ko li ñuy wax naan daru maanaam li ngay defar maanaam li ngay defar bala ngay jëmbat dara wala ngay jéem a jëmbat dara dara da nga war a fexe ba dindi tilim tilim yi nga xam ne moo mën a yàq loolu lépp mu mën ko mën ko dindi kon lii day gën a wane maanaam autorité bu Cheikh Amadou Fadal amoon ak nu mu ànde woon ak nguur ak nan lañ ko war a mën a mën a roy tey ndax fi ñu fii jamono ji ñu bëri lu lay gëm la mooy xam nga kenn Sénégal yu bëree bëri dañuy dugg politique wala nga ak fu mën a féete maanaam di làqatu ci ginnaaw ñi naan Cheikh Amadou Fadal defoon na lii Cheikh Abdou Lahad defoon na lii loolu bokkut ak yow nga jël dem ci ab parti jëndi fa carte di mil di militant bokkuñ ndax Sénégal dañoo séddali ko dañoo séddali ko ci ay gis-gis ñi ay socialiste lañ am nañ ay gis-gis ñi ay démocrate lañ am nañ ay gis-gis ñi ay républicain lañ am nañ gis-gis parti boo dugg rek na nga xam ne li muy loolu li muy tekk mooy ñii gis-gis biñ bëgg a tabaxee àdduna man ànd naa ci boobu kon yooyu ay idéologie ay xalaat la suñ ñun nag mouridisme mooy mooy suñu idéologie kon ki fi nekkal suñu tubaab moo war a nekk suñu leader leader bi nga xam ne mooy représenté ñun liñ bëgg ak gis-gis bi ñu am ci àdduna kon loolu it ñu war nañ koo gën a maanaam bay war xel xam ni yi ñuy dugg nii ak xa ak ni jamono dox ni jamonoy doxee maanaam ñu fexe bam bañ ñoo bañ bañ ñoo bañ ñoo fëkk ndax loolu moo ko wax li ñuy wax wa léegi ci ne maanaam suñu fal doole ji amoon dama koy tënk rek ci am na am na benn bis am na benn suñu benn kilifa bu koy nettali faññee boo xam ni ci ci biir ci biir élection yi doxoon diggante Lamine Gueye ak Senghor daa demoon Porokhane waaye bi mu dëppee ci biir kër Lamine Lamine Gueye la dugg te Senghor lay jàppale maam loolu am na autorité maam bu ko ko mayoon te nee na bu mu saan dem Dakar it ci biir kër Mamadou Dia lay nekk xam loolu moo loolu moo loolu moo doon wax te Senghor daan na ko fekk ci biir ci biir kër gi di waxtaan ak moom. ci la ci la commencé sib sonné ni maanaam suñu Fall suñu Mamadou Dia dama xam bu dee pël di tukkulóor waaye suñu Fall daan làkkanteeg moom te suñu dawul xam li ñuy wax maanaam dañ ko bëggum bëggoon dañ ko ba moo fexe ba am am am am ñu def ak yu mel noonu kon moom doole jooju la amoon maanaam kii nii faral kii lu tax mu bedd kii moom li mu xamoon mooy ni yëpp ànd nekk benn si ànd joo benn bis mën sawàño waaye lépp ci tënk la mu ko wax mooy toppal ci ginnaaw kii fi nekk nii bu jógee jox la moom moom loolu loolu la xalaatoon mooy nit ñi nañu àndandoo nekk benn am ndax am na ku mos ñoo ne ko maanaam mbooloo ma maanaam mbooloo maanaam mbooloo mooy mooy doole mu ne ko na fekk ñu nekk benn ndax nit ñi mën nañoo booloo te duñu nekk benn kon loolu moo nekkoon am am am njàngaleem te yaakaar naa ni tey war nañ koo war nañoo roy ci loolu maanaam tolérance bu amoon ci boppam ak tolérance bu mën a xajoo nit ñu mel nii ak di di séq ak ñoom te mosu ko yàqal liñ li li ak ci li mu bëggoon wala mosu mosu mosuñu ko traité wala mu si ngoon suñu fal daan na ko may oto mayoon na ko fi ab ab ab ak ak ak yeneen yu bëri bëri yoo xam ne bu ñu ko nettaloon da nga xam ne maanaam li li day day mel ni rek yooyu mu daan def moo ko mayoon doole jooju maa mu amoon ci réew mi. da moo ko mayoon door ji lu mu bëgg a def ci réew mi maanaam man koo def ak xeet yu mel noonu kon yaakaar naa ni waxtaan yu mel nii bu ñu ko dëppalee li li mu wax ak li ñu li jamono indi tey ak ni leen war a war a war a moytoo buñ buñ ci jàngatee yaakaar naa ni mën nañoo am lu bëree bëri loo xam ne mën nañ koo séentu ci lu ñëw ñu anticiper ko waxtaane ko ngir jamono day dem ndax Touba yaakaar naa ubbeeku na ci li mu wax léegi ci ñu fi doon def nangam ak yu mel noonu Touba ak Dakar benn lañ léegi autoroute mi ngi fi yeneen temps nga daw nga daw dikk léegi daanaka benn lañ kon waaw kon am na ay défi ay mbir yoo xam ni mi ngi ñëw yooyu nag war nañoo fexe nan la ñuy jàngale njaboot gi nan lañ leen di yare ñu delluwaat ci yar ndax Sëñ Tuubaa li ko yo- li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk wax mooy rabbi ashaabaka bil himma rabbi baatu rabbi la ko njëkk wax kon yar boobu bu dañee bu fi dañee rek yaakaar naa ne dara desitu fi te ñii fi nekk ñu doon waxtaan nii foofu fo- yoon woowu lañ jëloon fi lañ nekkoon lépp luñ fi defit yar buñ leen yar ak tàggat gu leen tàggat moo tax ñu mën a jëmmal loolu noonu kon foofu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi sant bu baax Sëñ Moussa Diop ci jot gi nga xam ne jël na ko ci biir temps ndax moom wax dëgg yàlla yàgg naa koy dégg ci ay waxtaanam mu koy wax mu ne moom ci kii bi ci liggéey bii nii ñoom yàlla nañ suñu borom defal tawféex te li ñu bëgg lépp ci fañ bëgg ak fañ bëgg a àggal liggéey bi yàlla na suñu borom àggal leen fa ñu ngi sant bu baax tey gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
ثانية في خذ بلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في خذ البلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في خذ البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا ونجني والمسلمين